villa grand ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg changé changer seen xarkanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aaju faju te du ngeen sonn te kenn du luubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni maquette yii xool it seen plan architectural yu yànji yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaaraange la ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar cité port kennook juma ji naan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP ma ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg.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 jotaayu Cheikh Ibrahima Fall yàlla na saa borom yokk fanam ci dolli wéram bi waaye di ñaanal jëwriñi sëriñ Amdi Moodu Mbenda Dia sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Modou Moussa Fall ñu gën koo xam sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng ñaan saa borom yokk fanam ci dolli wéram gi ñi ñëwaat nag ci benn fanub safar di alxemes bis boo xam ne mi ngi bàyyi koon ci jàmbaari sëriñ Tuubaa ji Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mu joxoon ko jàmbaari Cheikh Fall ji sëriñ Cheikh jëmb yal na yàlla sama borom dolli seen leere yi dolli seen ngërëm ñu di quartier bis bee nag tey jii di alxames ñu ànd ak kenn ci jëwriñ yi sëriñ Falil Fall jëwriñ sëñ Modou Aminta di jëwriñ sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi fi toog tey ci buntu kër sëñ Modou Moussa Fall toog ci kanamu mbooloo mi ànd ak mbooloo mi liggéey bii nga xam ni sëriñ di Fall moom sëñ Modou Mbenda moo ko jox sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng ak mbooloo njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi sëriñ Falil toog fii ci marché Ocass bi ci njóobentaay bi ci mbalit moo xam ne at mu jot dafiy toog muy doon jal boo xam ni daanaka lu mat fanweeri camion mën na fee génne ca jeex mu bëgg a nag ci turu si Amdi Fall mi nga xam ni moo fi maam Serigne Fall ak Serigne Cheikh Fall mi nga xam ne mooy jëriñam moom mii di seen jëriñ ne ci kanamu mbooloo mi ànd ko njaboot gi ñu déglu Serigne Fall yi. sëñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. nee na bokk jullit yi bokk taalibe yi njabootu Serigne Touba di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall. yéen waa presse bi fi teew. yéen waa presse bii fi teew. télé yëpp mënuñu koo lim. nee na télé yëpp mënuñu koo lim de. waaye liy ndimbal daal dafa ko. sëñ bi nee na am ngeen ko. ndax Serigne Touba woote na kat ngeen wuy si ko. teew kaay la wuy ji kaay leen jël la. doon mooy kaay leen jël. waaye li ñuy jël nag. mooy njariñ mooy jëfe ndigal li rek nee na tuubaa gi taxul de ñi fi nekk ñoo ko taxal ndax li fi mbalit li fi ñi fi ne ñoo ko fi def nee na kon nag Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ci ndigalam daa am njariñ loo xam ni da koo jox jullit yëpp jox ko murit yëpp jaar ko ci jëwriñam ji nag sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda di maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Amdi moo Modou Mbenda itam jox ko mboolem njabootu Cheikh Rafal gépp jox ko mboolem julit yëpp ni njariñ laa ngi nii sëriñ Tuubaa ñu ko jox kaay leen jël la waaye lu ci waay am nag yaa ko jëf sëriñ bi moom mayewul ablewul saraxewul day jaay rek nee lu waay jëf yaa ko moom ca ndigal li jëf moo nu ci may dara waaye wax du ci may kenn dara nee li ci may yomb na lool ndax kaay leen wuylu lan lu sëriñ bi wax kaay leen wuy nag sëriñ Falilu nee na mooy kaay leen jël waaye li ci tax am nag buñ ñëwee ñu jëfe ndigal li ca bañ cee xeeb dara ku amub oto wala ab saret wala nga amub ratu wala ab gopp wala peel wala fourchette wala parla wala ak bale nga ñëw ànd ak moom teew ca fas yéene liggéey sëñ bi nag te bañ a xeeb nag la nga indaale boo toogee say añ baax na boo joxee ay ndox baax na soo tàngalee kafe Touba baax na boo joxee miskit baax na boo joxee gerte it baax na loo mën a joxe gaasuwaal ak lépp baax na te nga moom ko boo ko ci defee sëriñ bi dana la ci defal la nga bëgg nee na bu kenn xeeb dara na ñëpp génn seen i kër ànd ak ñi wuy si ñu bokk ñun ñëpp dafa sëriñ Tuubaa bëggam gi suñ defee bëggam gi rek sëriñ Tuubaa def suñu bëgg kon sëñ ne nee jërë ngeen jëf sëñ baa ngi woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw fukki régions yii ñu ne ci Sénégal ak waa bitim réew sëñ bi woon na ci ñëpp ndax njariñ la loo xam ni ñëpp loo ko sëñ bi yéene njariñ nag mi nga tàmbalee ci bis bii tey di benn panam safar ba ca fukki fan ya ak juróom-ñett su boobee nag sëriñ Tuubaa neewoon na koo xam ni sama mbég sa mbéga bis bii bu ñëwatee nag ma ci sant yàlla sunu borom cant gi nag neew na nañ ko tàmbalee ci ginaar ba ci gëléem loolu bañ a xeeb dara moo tax wala ñu bañ a naw dara nee lu ci waay man nan ko ci def sant la ko yàlla boroomam kon bisub sant la bisub sant nag ko am la nga bëgg ku ne yaay sant kon nan ñëw sant la yàlla su boroomam sëñ Tuubaa ba lii ko yàlla jox mu joxaat ñu ko ndax moo tax mu ko doon laaj boroomam kon ndigal laa ngoog nee nañu ñun ñëpp ñu maase. tàmbali liggéey bi tey bii ci alxames. fas yéene mu àgg ak jàmm. ci barkeb Cheikh Mamadou Mountakha. barkeb sëñ Modou Moussa mu sëñ Amdi Modou Mbenda. di maam seex Ibrahima Fall. barkeb sëriñ Cheikh Fall Ndiaye Mbeng. di xalifu sëñ Modou Moussa Fall. sëñ bi daal bàyyiwul kenn. ndigal laa ngoog. yéen waa rajo yi nag. ak waa yi. sëñ baa ngi ñaan ci sama borom. mu defal leen jàmm ci liggéey bi te yokkal leen ko ba li ci bëgg sëñ Tuubaa defal leen ko ci ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall nee ko na jërë ngeen jëf sëñ Fallou Fall jëru ji moo doon jottale kàddu yooyu na daana jàll leen di la ilaha illallah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 laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah diidu neen faal yàlla laa gudee neen faal ne ba ko faal yàlla laaw wuroomeen faal ma jakoo faal fee Mustafa dégum jaam mi yaaw am faal fee Mustafa